contenu ni buñu dugal nga daal ci si mën a jot ngi nonu ñëwaat nak ci vidéo bu am solo ay jangat waaye ay révélation jëm ci mbirum Abdou Karim from khakro buñu ko tuddé xel da fay dem ci patriot bi nga xamné nak nek nako mom Abdou Karim gay wax dëgg fi yalla ak lu mën di xew gis nan xex bu am solo bi nga xamné nak doon nako xex waye waaye tamit and ak ki nga xamné nak modi Ousmane Sonko jamono bi nak mën nañ né takaliko dafa mel dal ngay yott sen digënté ki di Abdou Karim from khakro ba tax na sax amna ay kàddu yo xamne ne na koy yekati ginnaw kañot mi nga xamne nak amolon nañ ko patriote yi joxon ko xaalis mom nak dafa mel ni jamono da fay reccu lek gi nga xamne lekkon na bobé xaalis dinañ ci ñew waye tamit ki nga xamne nak modi monsieur le maire bu Dakar di Barthélémy Dias jamono bi man nañ ne coalition sam sa kàddu mom lañ fal li nga xamne nak modi tet de liste mom Barthélémy Dias Abdou Karim Xrum xaq nak mom dama yaakaar ni moom euh, ndofam day jékki-jékki ni bu ceeb jóg tiit Abdou Karim Xrum xaq bari ngeen a xam dof mu gàddu ay yetam Abdou Xrum Xax wérul Abdou Karim Xrum Xax wane woon na jikkoom bu yàgg ba ñu wutalee gi Mouhamed Guimari Sagna oto mu nekk ci di coow di wax ñu ne déet waaye mu attaqué Ousmane Sonko ñu ne mu attaqué Abdou Xrum Xax ba tey moom xamul lu mu bëgg ba tey dafa wérul nit nag wax dëgg yàlla ku ànd ak sagom nañuy jox suñu ensemble mais bu tey nga wax ni bu subaa nga wax lee yow bu tey nga xeex ci bu subaa nga xeex ci léegi waxu dofam yi muy wax mu bëgg ñu dugal ko ci ensemble bi mu continuer ci ay waxu dofam dañuy gàcceel du ñu rusloo quoi en en tant que africain sénégalais. parce que yow ku le na la jàkk xam ne yow xamoo li nga bëgg Abdou Karim Xurum Xaq nit ki dafa am vision ba nga xam ne ca ngay ca ngay dëkk moom ngay xeex ñu xam ne yow lii nga bëgg waaye bu tayee nga xeex ak duus bi bu subaa nga xeex ak lal bi bu ginnaaw subaa nga xeex ak wifi bi bu ginnaaw waati subaa nga xeex ak mbedd mi bu ginnaaw so nga xeex ak néeg bi ak ëtt bi yow amoo kenn koy yow daal lu la sa xel jox rek ngay jox mais tamit nit nag ku ànd ak xelam franchement nañuy àndal mais ku àndul a xelam Aboubacaram xurum xaq da ngeen xam ne wérul wérul ba mu feebaree ba tey ci affaire boobu ñu yóbbu ko Allemagne yooyu ci Macky Sall moo tourné bopp bi carrément carrément mais ab Aboubacaram xurum xaq teeyal nga dal rek teeyal nga dal ñu ngi lay ñaanteel dal te yaa di la ñaanal yàlla may la wér Ousmane képp ku beddeeku di ko xeex wala képp ku beddeeku di wutub dara yàlla dalay weer doo am dara Ousmane ku ku ku ku koy jéem xam nga yàlla dalay weer képp kuy wutit naan da ngay wutal réew mi ak yooyu di wuti pour am bu yaa ngi làqoo sa xol mu leer la boo ko amee Ousmane ngay xeex doo am ngeen bàyyi ko xel Ousmane ku ko bañ doo am dara torox rek Ousmane Sonko dafa am lu mu liggéeyal yàlla nga xam ne dafa ëmp jaam yu bari dafa ëmp jaam yu bari mais Ousmane dafa liggéeyal suñu borom barke alquraanu kan Ousmane lu leew lay lekk Ousmane foo ko fekk mi ngi naafila foo ko fekk mi ngi jaamu yàlla di woor wooru sunna foo ko fekk xol baa ngi set yéen ñëpp jàmm bëgg a xettali àdduna benn doomu aadama bëgg xettale àdduna rek mu jaral ko mu joxoñ jomaay nga xam ne kooku xolam ki ñaan nekku ci ki ñaan nekku ci jomaay mosul xalaat dina nekk président tey mu nekk président yàllaa ko ko may ak yaram ak yéene yéene bu sell gis nga yéene bu sell yàlla day fay yéene bu sell jour bu mu taxawee ne Ousmane mooy suñu candidat nangam ak nangam parce que foofu yéene bu sell la ko waxee bu mu koy wax sax tayu ko ndax xol bu rafet ndax ndax ndax xeexle Ousmane Sonko yàllaa ko ko fayee lii parce que Ousmane Sonko bu leen fàtte ni Diomaye nekkul deuxième euh, kii bi deuxième numéro am ci ci ci Pastef am na keneen ku mu nekk mais ki yàlla wan ni du or Ousmane kooku la yàlla teg mais képp ku taxaw ak nekk deuxième euh, candidat bu nga xamante ni tey ji bu fi nekkul moo fi nekk kooku bu tegu nga xam ne kon xolam dafa setul ci Ousmane yàlla mooy wane du ñun yàlla la gëm leen yàlla te ànd ak yàlla te nangu ndogalu yàlla ngir yàlla Ousmane ku la bañ yàlla na ko yàlla toroxal ku bañ yàlla ko yàlla xas yi bu mu dee de yàlla toroxal ko muy sa teraanga yàlla yàlla di ko gën di toroxal yal na yàlla teral suturaal la képp ku too nag di làqu sa tur te di la galgal ci suuf ci sa réew mii ci sa euh, gouvernement yal na ko yàlla toroxal weer ko ni géej te incha allah Ousmane yàlla dina la weeral say noon ñi la jege ñi la sori ba nga kontaan ci barke lay roxlaka billaahi bu leen ko ñu bari nañ weeru te du ngeen ko fooge incha allah Ousmane macha allah borom bopp la de Ousmane du waxantu de lu tax mu ne yàlla bu bañee Sénégal na ko jox Amadou Ba allahu akbar parce que xam na gis na Ousmane du ko ndaw de yéen da ngeen xamul ki ñu yàlla may mais am na ñoo xam ne ci biir nit ñi xam nañ ko bu baax barka alxuraan moo tax duñ ko fooy duñ ko caaxaane seen bakkan lañ ciy teg Ousmane yàllaa ko tànn yërëmee ñu ko Ousmane yàlla ñu ko yërëmee pour Sénégalais yi xam ko Sénégalais yi yàlla daf leen a yërëm moo tax mu jox ñu Ousmane ñaata atu yàlla na mënuñu jox ko mel ni Ousmane kon yàlla moo ñu ngir ñi nga xamante ni Macky Sall bu fi yàggoon taw sax fi am Amadou Ba bu fi jeex Sénégal jeex Sénégal Farba dem na ba Fuuta kenn ñu ci genn wàll gi gëmatuñu yàlla xërëm la ñu gëm ak ak fétiche lii la dugal ci bopp jeune yi non ñii ñii ñii ñii ay xeet yu na leen yàlla at di leen wax député nga xam ne ku ci mel ni Anta Babacar ku ci mel ni Thierno Bocoum ku ci mel ni Khalifa Sall Bougane Gueye ku ci mel ni Amadou Ba te nee na oh, oh, ku ci mel ni Amadou Ba ku ci mel ni Pape Djibril Fall ñii tey ñoo taxaw ak Barthélémy Dias ñoo doon xeex Macky Sall pour mu jóge fi tey ñoo dem woolu Macky Sall ànd ak moom pour nguur kon ñi xaalis pour ray sénégalais yi moo leen jaral nguur li leen jaral ñu ray sénégalais nguuré leen ko jaral kon ñi bëgguñu kenn nagam ñoo ñoo dem ba ànd ak Macky Sall ray katu nit Macky Sall dictateur Macky Sall assassin Macky Sall mi doon ray suñu doom yi Macky Sall mi lu oustaz Aliou Badara Ndaw moom ak ñoom ñi groupe bi ak seen député yi Macky Sall mi ray Fulbert Samb di jabal ji ci ci ci bànneexu baqanam ak ñoom Batalim Dias ak ñoom Khalifa Sall ak ñoom Thierno Bokoum ak ñoom Bougane Gueye ak ñoom euh, amadou ba ak ñom pap diouri fall kon ñi dañ lay won ni ñi ñoo non reylu xale yi kon yalla leen wër yalla bu la ray wër da ngay jëfru kon ñi ñu ray ak ak suñu doom yi doon sànni ci géej kon coalition bi ñoo ci andol wër nañ seen bop ak seen député yi kon né nañ dañuy àndaat li ñu jotal naan ci deretu sénégalais yi doyul dañu xifaat ku ci melni ni babakar nga xamni jigen la di jur nee na day and coalition nan deret pour li ñu nan ci deretu sénégalais yi doyul c'est parce que li moy lay won ñi dañu fayeku won xaalisu Macky Sall xaalisu Macron doon nono melni kuy nono lama len don, doon wax rek dañ doon dañu nek ci bar bi di waxtaan bu bëccëg ñu tasaaroo waxu ummi gay day yend way du fanan mais gis nga ñii raykatu nit yaa ni bambi fayu yaangi ni ay ñom euh, wa APR yi wa PDS wa tax wa wal ñi ñep même gang bi la dañu andat nenañ pour xex ak Ousmane Sonko niñ doon ak mom bëgg lu ko def daw làqu ci mom di naan deretu askan bi ànd ceeg Macky Sall bu guddee ñu gisee bu bëccëgee ñu ne Ousmane Sonko yow la ñu bëgg dëmm yooyu tey ñoo àndaat ak Macky Sall nee nañ deret bi ñu naan ci Sénégal yi doyul dañuy war a naanaat pour bëgg ci ensemble kon ñii dafa il est temps ñu toroxal leen il est temps ñu toroxal leen ne Sénégalais yi yeewu ànd ak Ousmane jël majorité bi yëpp jël député yëpp teg ko ci loxo Ousmane Macky Sall bi nga xamante ni Sénégal bu juddoogul sax sàcc na xaalisam ci 900000 pour boo wàccee fay ko sàccal ko ay doomam ci ñu juddoogul jox ko Macky Sall sàccal na ay doom ay milliards dama leen ne woon Macky Sall sàcc nañ ba sàccal ay sëtam yu juddoogul léegi sëtu Sénégal yi juddoogul nag ñoo koy fay après gis ngeen li Macky Sall def ak encourage ak coalition bi tey Bougane Gueye da lay won ne ñii bokkoon na ci ñi rey la nit ñi moo ko Youssou Ndour ñoom ñëpp moo tax duñ ko wane seen télé yi parce que dañu bokk ci lobby bi dañu bokk ci lobby bi kon sama gars yi affaire yi leer na nañ nee naan laan lu ñuy gën a yàgg rek muy gën a leer mais dama ne bu leen fàtte ñi ci réseau bi di saaga nday Ousmane Sonko ak di ko montage avocat Ousmane Sonko yi jël nañ seen matuwaay képp ku ko ci def ngir yàlla envoyé leen ma numéro am wa ilaa yéen ku ngeen xam ci avocat Ousmane Sonko envoyé ko man de bu soobee yàlla jël naa sama matuwaay groupe bu ma bokk ñuy monté Ousmane Sonko ak di ko di ko di ko di ko saaga dinaa jël sa numéro dinaa ko yóbbu justice incha allah ci kat ñaar même boo yoree numéro